Assane ñu dooree foofu la sax ci bor boobu nga xam ni mu ngi toll ci 637 milliards yoo xam ni lebalati nañ ko Sénégal mu gàccootu ci ndoddu Sénégal kon boo xëy na tabaski daa nar neex xam naa moo dina la illustrel jataay bi amoon foofu waaw mi ngi noonu. la belle mission dañ faa leb xaalis indi ko Sénégal. lebal nañ comme ah. d'habitude ni mu daan amee. Hmm. waaw. ah waaw am réew de ginnaaw noonu lay doxee moom day leb di dem lekk di leb di dem lekk ginnaaw doxiinu réew la hmm. ah buñ ñu ko lebalee nañ xam fi ñu koy dugal rek ba buñ ko dee fay mu yomb te bañ koo dugal foo xamante ni tuba yi paate képp ca boole doon mhm. waaw mais liñ mhm. waa ci demal demal waaw demal dama ne euh, bor bi ñuy lebal nañ xam fi koy dugal ministre bi yore wàll woowu nañ ko ko jox buñ ko ko joxee moom mu dugal ko fi mu war a dugg bu dee ay tëli ñu xam bu dee ay hôpital ñu xam bu dee euh, ay poste de santé ñu xam bu dee engrais baykat yeeg sàmmkat yi ñu xam waaye bu dee dañ koo jox ñoo xam ne dañ siy wutal seeni euh, xarit ay 4x4 ay ay 4 x yu rafet euh, ak ay weer ay jongoma bu dee loolu nu mu si mën di doonaan na Sénégal yi xam fi bor bi dugg ndax. bu ñu ko Sénégal nan lay nan la ñu demee leb xaalis di ko jëndee 4x4 di ko joxi jongama. nan la ñuy demee di di di di ko di ko defee ay post de santé. mais loolu si jàmm poste yooyu laa njëkk a wax. lii dama ko tëjee rek joxe hélas <laughs> jërëjëf Modou ci euh, rectification bi wax nga dëgg mille six cent trente sept milliards mille six cent trente sept milliards incha allah alaaji mhm. kon boog am na bor bu ñu lewati xëy na jombul comme Sénégal am na lu ñu yàqule ci ñetti fan yi ñu génn booy am lu ñu sakaase bu ñu amaatee mille six cent trente sept milliards daal kon xel mën naa dalaat ci li yàqu woon. waaw xam nga euh, bor moom. Euh, léeg-léeg mu baax hmm. léeg-léeg it euh, mu bon hmm. waaw léeg-léeg nga gis nit lépp alal nañ ko jël rek pour bañ a soril mbir mi hmm. natt ko cib kër léeg-léeg nga gis boroom kër gu lepp tabax këram gérer ñàng xale yi lii mu investir pour xaalis boobu mën a jur mu wëlbatiku di fay banque yi di lijjanti paren saay banque yi dañ lay wax ne la mhm. prêt moom lu munta ñàkk la mhm. nit ki war na ko mën di def pour regle li nga xam ni mooy problème mais na fekk ki nga xam ni moo koy def mhm. xam li muy def lan la parce que loolu day daal am solo waaye bu fekkente ni bi tey damaa leb mu am loo xamante ni bi mooy priorité priorité boobu ma wàcc ko fa dem di def leneen bor boobu luy sonal kër ga la mm-hmm. parce que dafa am yoo xamante ni bii euh, dañ koy faral di gis est-ce que looyu mooy priorité Sénégal yu bari yi nga xamante ni bi dañ koy faral di gis tey jii boroom kër bu leb ay kii dem jëndi ay écran plat. Mm-hmm. fekk ne kër ga mën na bañ a soxla loolu dëggantaan wala mu dem def lii dem jënd ay ki yoo xamante ni bi mooy loolu am na loo xamante ni bi euh, dafa am problème hmm? internet déedéet amul problème ah d'accord <laughs> parce que damaa gis ngay xool nii kat di kii moo tax non am kuy yi ma bëgg a xool kii bi yaa ngi dégg hmm. Hmm. donc looyu mooy yi nga xamante ni bi mooy kii te nag Afrique ñun dañoo xalaatut kañ lañuy ñuy leble ñun daal dañoo bëgg continuer rek di leb di leb waaw yëpp nekk ab bor loolu moom wax dëgg fa yàlla lu ñu war a xoolaat la ndax ñun dañoo war a continuer di leb ba kañ parce que man depuis ma xam Sénégal ba nëgë ni mais alaaj réew yi leb bari na de. dimbali nañ ko du Sénégal kese de. waaw mais c'est que même Amérique moo ñu ëpp bor. waaw loolu laa waaw mais xam nga même bu ñu ëppee bor. waaw xam nga suñu différence ak dëkk yooyu xam nga mooy lan. mooy xam nga tey jii France moo ñu ëpp France mi moo ñu ëppi bor. Mhm. waaye xam nga suñu diggante kii mooy lan. Mhm. maanaam France tey mën naa dem imprimer fee ay billets CFA lebal ñu ko. Mm-hmm. yoo xamante ni seen i machine la ñuy defaree rek eh, lebal ñu ko jur mu nekk ba bor boo xamante ni loolu mën de àllaaj ñooy defar xaalis ba ñoo koy defar waaw xam na ah? waaw ñooñu di ñooy defar xaalis ba ñu dem imprimerie rek yónnee ah, jox la bu ñu demee imprimer lu bari ci CFA ñoo la wax ne ñoo lay gaaral lebal la ko loolu nekk ci sax ndodd léegi nag ñu koy euh, ñu koy dindee ñu koy jëlee neneen hmm. beneen façon boo xamante ni bii mooy loolu comprendre nga c'est loolu mooy li nga xamante ni bii mooy sunu sunu jafe-jafe ci jamono ji nekk nii. Mhm. waaw mhm. loolu euh, en tout cas bor yi man son yi bu wax mhm. dëgg fa yàlla euh, war nañu daal jéem a xool. nu ñuy def ba limité parce que bor yi dafa ëpp depuis que président Macky Sall nekk feeg nëgë ni. li ñu fi yor ci bor est boo dajalee li ab leboon. li Senghor leboon. Abdoulaye Wade leb ko est que tey jii président Macky Sall xayma nañ li mu leb. boobu ba nëgë est ce que doublé wu leen. ok waaw c'est loolu euh, tamit mooy doy tey boo naan président def na lii def na laa def na lële mhm. euh, est-ce que doublé wuñ d'accord voilà kon daal ci lebin wi daal